doxalin moo la heurté parce que maa ngi dégg nga naan euh, depuis le mois de mai kenn convoqué tu la euh, conférence Yewwi alors que vous êtes d'égale dignité wala. bon man may mun a <laughs> yi boobu li ma ciy wax waxati naa ko wax naa ko ci biir wax naa ko ci biti wax naa ko ci biir réew mi wax naa ko ci ci ci bitim réew euh, Yewwi dafa am feebar bu mag bu leen dal. mooy feebaru yaakaar ni histoire politique gu Sénégal ci ñoom la tàmbali. Maïmouna Yewwi est née le deux le jeudi 2 septembre 2021 Yewwi amagul ñaari at yu mag Yewwi bi mu juddoo yaakaar ju bari indaale ko indaale doole ju bari aussi ndax yaakaar joo xam ne askanu Sénégal am nañ ko ci. yi am benn parti boo xamante ni aussi foo nga nangul leen ko bi ñu ñëwee am na lu bari lu mu indil ci yi nuru na sax benn jamono ñoom ñoom moomee vent da leen koy nangu waaye man moomee vent dama impressionné wul ci politique xam nga lu tax damaa gis Idrissa Seck moomee vent ma dund Thiès Idrissa Seck moomee vent man nekk xale nekk étudiant Idrissa Seck moomee vent di def discours nit ñi di say di jooy di def discours ñi doon añ bàyyi seen añ ma garder sama lucidité booba yu bëri d'accord ma ci woon ak moom waaye yeewi yooyu dañoo war a xam ne walla ñooñu jàpp ni peut-être tey ñoom moomee vent histoire politique Sénégal jiitu na ñoom seen dund seen judd jiitu na seen action politique Moomevent yàgg na ci réew mi le 14 mai 1914 Galaye Blaise Diagne a été élu premier député du Sénégal Palais Bourbon 1934 Ngalandou a été élu député 1945 Lamine Gueye ainsi de suite Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ba tey waxoo pratique yi lan la yan pratique moo la ci gêné ba nga dem ba ñu convoqué la ñu ñàkk la convoqué euh, nga yemale. waaw oh, bon pratique yi manque de démocratie la parce que yi ci ay charte la war a dox ci ay principe la war a dox ci ay texte ay texte la war a dox li ñu mën a reprocher benn membre Yewwi mooy nga ak en connivence avec le régime makisal mais xam nga ni loolu man laaluma fen ñi ngi joxe suñuy cotisation li yi di joxe ci ay directives à la base ña nga ca mais ay réunion politique yoo xamante ni ñun dañoo wane taxawaay ci biir conférence des leaders ni fii ñi ëpp bëgg a jaarale coalition bi baaxul ñu martelé ko jàkkaarloo ak ñoom jour bu ñu ko defee jour boobu lañu bëgg gëj a convoqué ba tey ji te buñ la convoqué wul mënoo participer. ah ci ci ci activité yi. da ngay dem di saraxu pour ñu convoqué la. kan mooy convoqué. may mën a franchement Yewwi c'est une vieille histoire. c'est des waaw mooy convoqué. nga Yewwi <laughs> c'est une vieille histoire. mooy convoqué ku jël responsabilité. de ne plus convoquer des responsables qui sont d'égale dignité. kan moo doon président de la conférence des euh, bu njëkk ba xalifa Sall la woon après Habib Sy moo ko remplacé. dama laaj leen ko. ah depuis depuis mois de mai lañ la convoqué tul mai ban. mois de mai bi 2022. 2022 donc boobu Khalifa Sall moo nekkoon président de la conférence des leaders. donc Khalifa Sall moo la convoqué tul après Habib Sy ñëw jël tamit moom tamit convoqué tul mais est-ce que dem nga à la pêche à pour comprendre. un jour dama échangé <laughs> téléphone ak le doyen Habib Sy ni ko doyen ban faute la def ba yeewi ba ñetti maa convoqué à la conférence des leaders est-ce que dama violé benn texte est-ce que da ngeen ma dégg ci Macky Sall est-ce que dama comporté wu benn comportement boo xamante ni da ngeen ci war a sukkandiku ci texte nga ni kii dafa violé. mu ne ma tu sais mon fils la politique est très compliquée dans ce pays. loolu kese la la wax. waaye. <laughs> kon moom dañ koy jox en injonction. Ah, Habib Sy je n'ai pas dit ça de. mais la politique est très compliquée dans ce pays qu'est-ce que ça veut dire. ah. loolu kay joxul tegul dara sa loxo. ni ngi noonu. donc yow la page Yewwi elle est définitivement tournée. Yewwi est derrière moi. may Maïmouna j'ai eu une histoire avant Yewwi j'ai une vie ah, après Yewwi. ah aussi que tu maire de Thiès. may c'est grâce à Yewwi que tu es maire de Thiès. Maïmouna. c'est grâce à Yewwi que tu de Thiès. Maïmouna. loolu aussi waroo ko fàtte. dafa am ñoo xamante ni amuñu woon une vie avant Yewwi avant Yewwi Idy 2019 moo fi nekkoon. ñenn ci Yewwi nekk ci kilifa Yewwi yooyu nekk grand stratégie Yewwi yooyu yor communication Yewwi woo